ma la ci carrière Balla Gaye numéro 2 loo ko jàngatee ndax Balla Gaye nekk na benn mbër moo xam ne nii mbër mu yéeme la. Balla Gaye bokkoon na ci mbër xam ne nii challenge la ci làmb. Balla Gaye bokkoon ci mbër yi nga xam ne nii làmb dañ koy xaar. ñu toog ñu ne Balla Gaye dégg nga dégg ko ci télé mu ne damaa dégg ay blessure sama yaram ba tey jii mënatumaa bëri te balaa maa ñëwaat ci làmb damay faju ba wér loolu bi nga déggee Balla Gaye wax ko ak ban xalaat nga am ci carrière Balla Gaye numéro 2. Euh, mais mais c'est normal euh, un lutteur de la valeur de avec tout ce qu'il a fait dans l'arène parce que 2 janvier 2000 2000 2005 bi ko ci ak Samba xam 22 avril 2012 bi mu rek euh, bi

mais gis nga bi duba les taxawé arbitre di pare sifflé mu talal Balla gay talal ko ñaari loxo mm-hmm. ma organiser lamb ji ma ngi ci digg geew bi duba les ne ko fi laa dajeeg Mbaye Gueye fi Robert fila dajé ak Moussa Diame ne woon 2012 lay daanu te yaa dajeeg moom Balla ne ko ñaanal gaaw mu gaaw ma daan ko dem ñibbi fekk mu mel ni ñëpp ni bëreeg mom bëre bul tol nonu nga gis fi mu jaar ci digganteem ak ñoom Mouhamed xam Tyson ñoom Modou Lo palmarès bu bi mu def ak ni mu andiwaate làmb jox ko dimension ak dayoom bu demee nag ba tollu ci situation bi war nañ koo mën a comprendre bàyyi ko mu defaru nag parce que Balla Gaye di bëri rek day dundal làmb waaye Balla Gaye di daanu ci làmb loolu tamit bu yàggee day yàq làmb mm-hmm. gis nga dafa am euh, tey au niveau nga xam ne football bi ma lay wax nii dafa universel Mhm. c'est le sport le plus riche dans le monde. tey les grands joueurs yi nga xamante ne ni à l'image de ñoom Messi ak ñooñu dañ leen di protéger. Mhm. tey Balla Gaye icône la dans l'arène sénégalaise c'est quelqu'un boo xamante ne même boo bokkul écurie Guédiawaye boo ko école de lutte Balla Gaye euh, Balla Gaye da ko war a gis saay boo ko gisee même bu dul sa mbër doo ko supporter da nga ko wara a respecter jox ko cëram ndax fi mu andi làmb ak li mu def ci làmb. kon Grand Rail Balla Gaye numéro gis nañ nga communiquer ci moom tey ji communiquer bu large mhm. mais tey ji bu fekkoon ne Balla Gaye numéro 2 ak li ko defee ci lamb lii ko defee ci lamb tey ji boo amoon loo ko wax pour mu taxawee ko ndax Balla gay bokk na ci mbër yi nga xam ne nii mbërki démb diggante ba Balla Gaye numéro 2 waaw góor fa man xam nga xam nga fa mhm. doguma la mhm. li tax may bëgg bëgguma di waxtaan ak ñëpp xam nga li tax ma ne da ngaa lu ñàkk ci milieu bi waaw mooy ñii ngay waxtaane lamb la Sénégalais yi war di waxtaanee làmb pour ñi nga xam ne xamuñu làmb. te mm-hmm. bëgg ko mën a xam lan moo xew. xam nga question yi ngay posé dafa pertinente xam nga tey Balla Gaye pour dagg sa question te xam fi nga jëm parce que xaayaan ku dégg séeréer. li mu war a def ci fin carrière am xam nga mooy lan d'abord mooy li mu ko commencé nii. Mm-hmm. renoncer combat bi dem préparer ba pare. Mm-hmm. bu demee ba jàpp ne amaat na dara. mu ñëwaat jël ay combat mais mu changé ni muy bëree. xam nga carrière mu changé ni muy bëree. déggoo mm-hmm. ma nga carrière mm-hmm. euh, booy soog a débuté. Mm-hmm. da ut xaalis. wala wax nga dëgg. non booy soog a débuté pardon doo ut xaalis da ngay ut tur. da boo demee ba xam la. nga commencé am xaalis. boo demee ba am xaalis nag da nga war a xool sa xaalis nan nga koy toppatoowee. ba du yàqu ba bu ëllëgee boo génnee man a génni par la grande xam nga mu war a def. mooy changer ni muy bëree xoolal ku mel ni Yékini je te donne un exemple. <laughs> boo motee trois fois Baboy trois fois Tyson deux fois mais ñi mu daan ñëpp benn loxo la xeex ak ñoom. loolu arrêté face da lay tooñ nga ñëw ci kaw mu maytu la ut pexe fexe ba jàppale monté la benn kële dem ñibbi. dafa am loolu ci làmb nag léegi da nga war am maturité. di di recevoir di recevoir. di di xoolal di moytu. di bëre ak sa xel. parce que jeunesse bi nga amoon. fraîcheur bi nga amoon. fukk bi nga amoon. fraîcheur boobu mënatoo ko am. parce que léegi yaa ngi jël âge. et puis yaa ngi am ay soxna. di commencé tabax ay dëkk ci ay air plus 3 di di dawal oto buy jar quatre millions. am ay comptes yu baax di lekk-lekk gu neex kon donc fraîcheur ba nga amoon ak jeunesse ba nga amoon mën a toog am xam nga léegi lan nga mën a bëre mooy sa xel sa expérience. donc tey bi booy ñang taxawee Balla gay taxaw. Hmm. Balla Gaye taxaw ne nii di ko déglu ba ci yàgg dem fekki ko du yoon booy ñang mooy xale mooy ut jóge na ci ñaari combat yu difficile. nga xam ne sax amateur yi dañ ko ci mere ci digganteem ak Lac boo ñëwee mu leer na la yow kii daan na sarak ngay bëree ak moom dangay taxaw déglu ko mu bëre ci biir bëreem nga bëre ci biir bëreem ko daan ko dem ñibbi yëfi mag. waaye boo ñëwee xale bu toll noonu am fraîcheur bi mu am nga ne ko dama lay forcer dama lay corriger saa boo ko dàqee boo ko forcer man na laa daan. grand rajo Balla Gaye mu toll nii xamal la war a def. Mm-hmm. changer ni muy xeexee changer ni muy bëree am beneen façon ne amatul lu muy won Sénégalais yi parce que a déjà da jàpp ne Balla Gaye de li mu waroon a woon Sénégalais yi ci wàllu làmb yi war na leen ko ba pare. war na leen ko ba pare léegi xam mu war a bëri ci maturité buy bëri ak a Sène benn loxo rek la war a xeexee pied gauche nga benn loxo ngay xeexe denc sa droite sa droite warul jóg saay boo wala dul saay boo jàppanteeg sa adversaire. parce que rapidité bi. bi amatu ko ci bëre dafa war a bëre ci xelam di bëre ci biir bëre gars yi di leen nax parce que dafa mën a bëri carrément macha allah. dama ne la ku mën a bëree ni Balla Gaye fanaanul Sénégal. maa la wax loolu man raay waxantuma la. yow de say wax ci làmb dama koy dégg. làmb laay wax ak yow lii ba ma juddoo ba léegi ci laa ne te duma ma cuune yow it. mais grand raay mbër mu mel ni Balla Gaye numéro 2 gis naa ko dagg billet cent mille taxaw. Mhm. gis naa ko dagg billet cent mille francs taxaw. mbër moomu mel ni ndax war naa sàggan ba ay blessures daje ci yaramam. bay nekk lu koy lu koy lu koy lu koy lu koy yàqal. ah xam nga loolu. loolu mbiru yàlla la. parce que tey bala Gaye kenn du ne manul boppam. Mhm. mais Fadam dafa am loo xam ne bëgguma ko wax ci live bi mais dafa am euh, gis nga Abdourahmane en 1943 la dajeeg Souley Ndoye. walaay ndeysaan. mais keroog ba Abdourahmane Souley Ndoye daane Abdourahmane garab ga nekkoon ca penc ma dafa daanu. mag ñi nee nañ fa la ñu dencoon gàllaaji Abdourahman xam nga su dee ngi dëkk fii mbuur góor gi ñamaax ndooye ko jur mbërum lébu la mm-hmm. boobu lébu yi dañuy bëre seen buy te boobu góor gi Abdourahman man ci réew mi daan góor ñëpp dafa am nag ñoo xam ne bu ñu leen sampee pendant des années ñu aye ayle mm-hmm. saay boo dindee loolu war ngaa xam ne mbir a nga fa falaa a yem dégg naa waaw c'est bon kon baax na. waaw ndaal li daal nañ ko raxasaat rotaat ndox mu bees. xam nga lu mu war a def xam nga lu mu war a def. waaw am na ay moyens. Sénégal bëgg nañ ko làmb bëgg na ko na dellu INSEP si préparé waat maintenir moom te léegi nag xoolal lépp lu mu doon dépensé ci biir bëre mu xam ne loolu mënatul nekk léegi ci xel rek la war a bëre. ndeysaan. parce que parce que xale yii fi nekk yoruñu bëre bu mu yor. ñii mm-hmm. nekk. bëre bi mu yor yoruñu ko. Mm-hmm. kon dafa war a changer stratégie de combat. Mm-hmm. mais la mu doon gëmloo amateur yi ak i supporter am Moustapha Gueye daana ko def à l'époque dana wax j'attaque je cogne je mais mu jógi mënatu ko keroog ba baa ba mu jógee France ñu jox ko baabooy xam nga nu mu def. mu xam ne mm-hmm. baabooy day ñëw. bu taxawoon reyanteeg moom baabooy da koy àgg si kawam da koy takk arbitre dafa génn seen diggante rek mu ne ko tëf crochet droit. baabooy ne bëreet mu daw sutteeku. ñu yaakaar ne dafa ragal mu daw mu daw bay jub saako yi mel ni simulation mel ni ku defar téere bi ci bët bi baa booy ko mu daw di ko jël baa nappatu ko di ko sol ñaari naax mu rucceeku baa booy dal ci wet gi dafa gestu rek daan baa booy gis nga Yékini 28 mars 2004 bi muy daan Bombardier arbitre dafa génn seen diggante rek mu tooñ ko arrêt surface gauche Bombardier ne bërët ak fougue de jeunesse dàq ko ak ay rafale crochet gauche

fala góor ñëpp daje ma ne ku fa toog fukki at ak juróom sa gannaaw laalul suuf xam nga ne ndaanaan nga yax yu jóob yëkki ni kenn du moom xam nga loolu lu ko ko may. waaw. digganteem ak Baboy seen troisième combat. waaw xam nga deuxième combat Baboy dafa daan le 16 avril euh, déposé dafa ki nga xam ne mooy je mhm. coow la xam nga bari woon na. mu ñëw ñu jox ko yëkkati Yékini arbitre bi génn seen diggante rek mu daw jël Yékini Yékini di ko nappatu mu jàll ku jàll ci poxataan yi keroog da ko doon daan mais Yékini xam nga comme champion d'Afrique la xam nga dafa dafa def li keroog keroog men et puis nekk un tacticien xam nga Yékini gis nga saay bu ñu a solee naax Fadam waaye bu ñoo solee naax bi la yëkkati dammal naax ba gis nga keroog ba yëkkati solee naax Balla Gaye di jóg moom Balla Gaye dafa damm naax ba def retrait de corps naax ba mënatul a jóg moo tax bi yëkkati amatul solution mu daw di monti sa xabalu biir Balla Gaye moytu ko. Oh. gis nga gis nga saay bu ñu waree ndomb ki la war ndomb bàyyi koog sa bopp moom la yëkkati def keroog baaboo yi. Mm-hmm. bu riposté woon bañ benn côté mu déposé su beneen côté mais da ko bàyyi boppam bàyyi koog yaram wi damm yaram wi ci kawam lu baaboo yi tànte rek. Yékini fekk ko ci loolu. ndeysaan ba keroog muy ñàkk combat bi léegi nag dama ne mbër mu mel noonu da ngay jàng ci moom. mbër dafa am mbër yoo xam ne booy xeex gis nga gama contre keroog bi Franc di daje ak ak ak ak forsa ak Forza. Mm-hmm. Franc boo dooree mu fayu fausse garde la garde naturelle nga pied gauche lu mu métti métti day ñëw sa kaw mbër mu ndaw la te dafa xiif dafa gourmand dafa am doole te day monter en puissance étoile bu juddu la. sooy mhm. ba rek moom da ngay def déplacement latéral gauche droite ba pare di sutteeku sa gannaaw am nga arrêt surface xeex moom benn loxo. mais saa bu taxawee nga dëggal sa bopp boo leen dawee daje même bu jëlee sa coup da lay daan te xam nga yow waxtaan nañ ci seen TV. wala nga def analyse donc mbëri il faut ñuy moytu. gis nga Lac de Guiers 2 coow li bari na waaye moytu ci mën a mën a moytu ci mën a bëri la bokk. wala mais mais ki la dàq dóor mais boo mënee dóor ca moom moytu foo ma dóoree ma fayu man a moytu ci mën a xeex la bokk ci mën a bëre la bokk waaye yow nii sax ci wàllu àddina yow bëre woon mën a moytu sax xanaa xamoo boo nekkee ci àddina di doxal boo manee moytu sax noonu yi duñ man ci yow dara <laughs> yow ñaata yoon lañ la fi attaqué bëgg la galgal pour yàq li ngay def mais da ngaa moytu ba fi mu toll nii gaa ñëpp ànd nañoo yow xam nañ ne war a duñ ci yow dara mën a moytu ci biir la bokk <laughs> bilaay maa la gën a dégg yow suma frère nga et puis xam nga yow tu es important lamb ji lii lañ ko war di waxtaane gars yi di ci wax ñuy xool mbëri seen force ak seen faiblesse seen état d'esprit yooyu di ko waxtaane mais genre waxtaan yu njëkk yooyu dafa xeewi làmb ji bu njëkk gaam bi ko gars yi doon waxtaane dafa xeewi nit ñi làmb ñun ñi ciy wax ni ñoo ko mën a defar di wax les force des lutteurs ak faiblesse yi di wax seen état d'esprit c'est une performance, contre-performance. Parce que les records sont faits pour être battus. Taïdi, record qui nous défend, 15 ans, presque Danoul, 8 ans de, roi des arènes, Togon 10 ans, Danoul, ah, de, de, de, C'est des records. Bri, nous avons dit que nous battre battu Balagay 2 de, de, de, 2006 2012. Nous des records. nous record c'est ça qui fait développer la lutte. mais pas en tout cas je suis très content de toi. <laughs> il faut que tu viennes parce que loolu et puis une TV c'est la meilleure télé parce que moo jël paie te meilleure télévision au Sénégal. Je en très content de toi et puis de nous mon frère bi mu de de waxtaan bi Pape Sar. jërëjëf de content je ci content di content bu baax euh, nuyul ma Balla bu baax baax nag ak Baye Ndiaye. Euh, di wax aussi vraiment li ñu def Sénégal suis content nañ ci et puis yu continuer parce que nous avons le droit de reculer parce que Sénégal daf leen yaakaar. jërëjëf en tout cas merci Fadam merci bonne fin de soirée. merci beaucoup jërëjëf jërëjëf boo koy garaaraay ñu